Thank you. toujours ci un acte du jour Talata fukki fan ak ñeent ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñu jógee foofu dañuy dem seeta ji kii nga c'est l'avocat franco-portugais espagnol bi nga il se dit avocat mais il se ressemble plus à un activiste à quelqu'un qui est toujours sur les réseaux sociaux di Juan Branco bi nga dossier Ousmane Sonko moo ko Sénégal ba mu jural ko am contrôle judiciaire interdiction de venir ici au Sénégal jamono ji Juan Branco Dal, mi ngi félicité wu ci li nga xamante ni mooy avancé bi nga xamante plainte bu mu contre qui nga xamante président de la république du Sénégal di Macky Sall fofu parquet national antiterroriste bu nek fofu ci France ginnaw bu mu déposé ben plainte pour crime contre l'humanité qu'on ko déposé nak contre président de la république di Macky Sall ginnaw bu mu ko déposé aweeru juin 2023 qui di Juan Branco mi félicité wu bu baax ci démarche bi nga xamanteni yakarna na dina aboutir avec succès mi ngi ko xamlé ci page am muy ki nga xamanteni di Juan Branco di informer ne que li nga xamanteni moy crime contre l'humanité bi nga xamanteni parquet national antiterroriste français indi na ko daal daal di koy formuler ci ay premières réquisitions yoo xamante ni ci cadre procédure boo xamante ni engagé na ko contre président de la république du Sénégal di Macky Sall ak ki nga xamante ni mooy entourage am jëm ci ay crimes yoo xamante ni def nañ ko contre l'humanité di félicité bu baax a baax ci li nga xamante ni moo jëm ci avancé boobu ba tey moom kii nga xamanteni moy activiste bi mi ngi exhorté wu que kep kuy porteur bo xamanteni da nga yor ben mallette wala magistrat bok ci haut fonctionnaire yi nga xamanteni ni yaa ngi li nga xamanteni war na mëna ingérer wu lepp lu jëm ci bon fonctionnement démocratie sénégalais nga jël conscience ci incitation bi nga xamanteni jëm na ci participation wala autorisation direct wala indirect ci lepp lo xamanteni jëm na ci forme bo xamanteni lepp lépp luy commission de crime contre l'humanité jëm ci cadre attaqué li nga xamanteni moy généraliser lepp lu jëm ci système wala contre population civile bi wala imprescriptible bi mi ngi koy préciser qui est bien note notre boîte, ni dina koy publier ba utiliser réseau social le X le code Oui, ancien Twitter qui dit avocat maire u Ziguinchor Bobou di euh, Ousmane Sonko mi ngi souligné wu que képp koo xamante am nga forme immunité personnelle wala matériel boo xamante ni mën nga koo revendiquer nga incité wu jëm ci lépp loo xamante ni jëm na ci famille yi nga xamante ay victime la yoo xamante ni dañuy continuer di manifester li nga xamante ni douleur ki ko xamle nag du ku dul ki nga activiste bi le nouveau griot français portugais espagnol de Ousmane Sonko bi nga xamante ni day yor la miñam de mbelele la à chaque fois alors qu'il maîtrise même pas les sujets dont il aboutit en tout cas li ñuy jàpp daal mi ngi jëm ji daal di tàccu waaye yaakaar naa ne jógee di tàccu moo gën di jëm ci làmba di Thank you. <laughs>